lu tax doo ragal a wax dara moom sama gémmiñ li may def nekkatul rab tuddee ko para li may daral ak daral para para ase sa ira underground hmm? laa daa waame gën a rab laay këra sa ira mu may fàttaliku chon Seck tu sera ne ko la jappe di nga bitch ne bitch tu sera yeah tu sera wi sa ira inshallah sa ira c'est am the best motherfuck boy di def comme Shakira yengal ay ndik Shakira Shakira ge ira Irak malik kuf ne ge xana da nga dof rap melni dañuy raak ira Irak boy boy pareel nga raak nigga gëtal suñu proak c'est am as the best ne ge melni Tupac ak Biggie Star doole nit doole nit lolo gay di wax c'est am as the best de ne ge ma dak wax man damay freestyle booy di teg ñu naan booy bi daa cool ku wax man dafa cool ne ko daa duul parce que maa gën a kuul di cool di suul di suul as de bes si ñoo ma nigga dama xees wala dama ñuul ma nigga si si ñoo ma nigga underground tirada ñoo ngi nii te ñoo ngi ñëw ma nigga as de bes booy fuck you mara ma boy musul low ma nigga raame gën a gaaw ma gën a jàpp gën a mi leen flow ma nigga underground tirada as de bes yes musul low ma nigga BMJ ci sama wet léegi-léegi dafay ñëw ma nigga am gën a gaaw ay am as de bes maa ngi roo ma nigga di ma nigga ngay gaaw ma nigga nigga can show my nigga as the best of your bomb get eh, that your man nigga million flow million flow So sejabu million flow sejabu million flow mustik your flow mustik akayo flow top. I'm like your rai your. nigga lini my million flow lini my million flow best tag million flow hashtag million nga have new jox la million flow mi mi million flow rapport xam nga day gënal lo million flow lini duñ ko mën supporter man ak boy bi ñi koy def xanaa da nga doof kan moo jiitu kuy suñu chef. Hmm. waay ba yoof néga minute clé da nga dof marwaan néga dama lay door marquage à clé culotte culotte néga da nga doof lu ma neex laay wax rabatuma leer na je sabot sabot maa ngi si kaw néga damay cëppi cëppi njaboot njaboot moom laa def ndax ñi ma boot ñoo bëri maa ngi tongoor tongoor boo yoof lébu ndooy soo ma bëggee raagal di nga am maa ngi biir mbaadaan dam doon raak néga ñu may gasal kan naa ne du ma jukki waat du du ma musa pour man leneen lay doon nigga musuma tal rap aga I say fuck yo nigga one more time fuck yo nigga again lu ma neex laay def man maa jiitu nigga yo ngay cut again cut again da nga dof nigga mën naa la woowee góor jigéen xanaa da nga dof boobi dafa dof waa du ngeen ko té yeah, yow góor jigéen do doo jigéen wax ma góor bi dóor again? yow know me, def ba once again, génn as the best you know me nigga underground ko musti care matt yo, ni say assez am as the best ba me, nigga ëpp la ay flow maa licky liki liki lam faya liki liki lam faya as the best am na faya li may teg xatta faya underground ti la daya as the best ti la daya rax mi gën a gaaw ni gën sa rappeur la juutal daya rappeur bi juutal daya as the best in my taya fuck you motherfucker. fuck it maa ngi freestyle mel ni ataya léwal ak as the best you know ñëwal nga ne doo jéem moo tax ñu ngi ñëw rabal nga bañ rabal ñu bañ rabal nga ñu ñëw moo tax ñu ngi ñëw moo tax ñu ngi ñëw xam ne ngeen bañ ne nga moo tax ñu ngi ñëw. Eh, DJ Fax DJ Fax. sérieusement bu dee rab rek. bu dee rab rek nañu wax rek quoi. bu dee rab rek.